Comment ça va La rubrique. Comment ça va Maïté ben, ça va ça bien. Ça, va bien. Alors voilà. Euh, comme on dit, euh, comme tous les jours, hein, la santé est primordiale. Mhm. Il faudrait donc qu'on ait euh, une bonne santé. Et comme aujourd'hui, donc on a dédié cette journée aux femmes, aux femmes battues, aux femmes violées, aux femmes qui ont vraiment des soucis, qui est devenu aujourd'hui un phénomène boo xamante euh, ken dal daal mun xamatul dal fuñ koy nat maanaam fuñ toll ni mom xamatuñu fan lañuy nat violence bobu non nga xamante ne mu ngi am euh, te yamul rek juste violence physique dafa dem tamit ba euh, léegi violence sexuelle sax lañ koy gëna wowe parce que da ngay gis léegi violence yi yëpp même agression yeeg ñi nga xam ne dañuy reyaateeg yëpp balaa ñoo mën a kontaan rek dafa melni ñu violé ba paré dogu mëna def acte bu ñaaw bobu non nga xam mom lañuy def muy ray nit ki donc muy ben muy cri de guerre bo xam cri de cœur plutôt sax lay wax bo xamné tay jigen ñi yépp ak góor yëpp ak góor yëpp tey ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy def depuis donc depuis lundi vous avez remarqué la tendance avec euh, la fille qui a été violée à, à Tambacounda le cas qui est tué aussi le cas de la fille qui a été retrouvée à Wakam. Mhm. donc qui a été violée et tuée aussi voilà muy dal vraiment phénomène bo xamante dafa doy war alors tay ji ni dañu bëggone wax ci violence sexuelle boobu c'est que li nga xamante la fay indi ci nit surtout ci xale parce que les yu bëri euh, ils sont victimes elles sont victimes donc de ces genres de viol là mën nañ ci bañ a mais après ay séquelles yu importantes comme ay crises d'angoisse ay ay problèmes psychologiques ay ay problèmes de ay grossesse précoce d'un ko am ci tamit euh, ay ay ay problèmes yoo xamante ne par exemple euh, ci seen organisme lay nekk dem ba am ci ay problème euh, fibrome ak ay kyste ak y' a plein plein plein de choses yoo xamante ne dañ koy retrouver ci genre violence yooyu noonu surtout surtout côté psychique bi nga xamante ne ah nit ki ak angoisse voilà traumatisme boobu noonu nga xamante ne dafay bàyyi ci nit ki mm-hmm. kooku daf koy màggaale ànd ak moom di dund ak moom après tout le temps il faudra que mu am ben spécialiste bu koy jappalé bo encadrer canaliser pour qu'ils ko ci pour peut-être euh, faté té mu nek acte pour nit ki faté ko dina doy wat donc am ay spécialistes yo accompagner genre victime pour conscientiser les ni voilà ben jaar-jaar la ci sen et que nañu mëna a moytu wala jaar ni wala def ni ba ils ont tendance toujours à marginaliser ce genre de personnes au début c'est toujours bien beau hein dañuy gis ne ci début bi ñëpp dañuy nekk fi di xam nga di ci wax di ci wax di ci wax. mais après suivi bi voilà voilà lolu dégg nañ ko sank ci euh, info euh, flash info euh, Cathy Ndiaye bi muy wax le le gars qui allait raconter du n'importe quoi vis-à-vis des femmes effectivement disant que né waaye jigéen ni ñom ñoy provocatrice, yi ñoom ñooy inciter nit ñi à ce que ñu ñu ñu yegg ci sen kaw comprendre nga par rapport ak suñu état d'esprit la tay mujj nañ ko arrêté sax loolu muy vraiment loo xamante ne ñu ngi ci euh, ñu ngi koy rafetlu bu baax euh, ñi nga xamante ne autorités yi nga xamante ne ñoom jël nañ ci vraiment ay matuwaay mu jéggalu ci nag ne waa xam naa mbirum xale la rek waaye kenn kenn du xam mm. voilà <laughs> kenn du xam lan moo nekkoon intention am na yenn yoo xam ne kenn du ko wax kenn du ko foowee sax donc kenn du ko foowee donc je pense que tey si loolu laa bëggoon appuyer juste pour dire que il euh, y a énormément de conséquences vis-à-vis de ces viols là te nit ñi euh, bu seen doom amee genre problème yu mel noonu nañ ko accompagner jusqu'au bout accompagnement bi du moment bi xale bi wala bu mag jooju noonu di nekkee ci problème boobu noonu wala di amee di subir viol sexuel boobu noonu parce que viol sexuel bi quoi qu'on dise ça ne s'arrête pas juste chez les enfants ou chez les euh, les adolescents yi nga xam te ne c'est des viols extérieurs mooy maanaam nga génn ñu violer la wala nga dem fenn ñu violer la ça existe aussi dans les vies de couple il y a des violences sexuelles qui sont faites dans le milieu conjugal. mooy euh, mooy jigéen bi euh, jëkkëram daf koy soxla mu bañ. mu bañ euh, jëkkër bi forcé ko mu forcé ko te en général genre forcing yooyu dafay dem ba nekk c'est violent en fait. du nekk bu ñu demee ba tuddee ko violence sexuelle rek. Ah, mooy nekkatul forcing bu yomb bu ndaw. ku d'accordul kañ voilà nekkatul forcing bu ndaw xam nga tey sax dinañ ne jigéen da dafa jëkkëram xam nga parfois bon en fait avec notre nos réalités hein c'est genre waa sa jëkkër bu la soxlaa da nga ko jox sa bopp. Mm-hmm. d'accord di nga jox sa bopp sa jëkkër boo bañee tamit peut-être war na mën a warul sax amul sax droit insister mais bu ko defee tamit am na nu mu ko war a mën a defee ba telle sorte que du la gaañ mais kii dem ba naan dafay yegg sa kaw ba pare teg ci gaañ la loolu c'est c'est ça dépasse toutes les imaginations pour man loolu foofu mbëggeel mënatu fa am respect mënatu ci am considération mënatu ci am te après ay conséquences yi muy indi derrière mooy des cas de divorce des cas de séparation de famille da ngay gis ay famille yoo xam ne fa la ñuy jaaree tasaaroo surtout bu nekkee ay mariage euh, familial la yi nga xam ne ay affaire de cousin cousine la genre acte yooyu bu ci amee rek c'est terminé absolument voilà donc euh, foofu moom <laughs> jàpp leen rek ni que dama amoon benn question may posé mhm. xam nga de plus en plus dañu seetlu ni que euh, ñu mag mhm. dañuy dañuy dañuy dañuy essayer nax ay xale yu ndaw sept ans huit ans pédophilie mhm. maanaam nañu wax waaw pédophilie pédophilie effectivement dafa nekk benn benn affaire bu doy waar fu mu ne nii non loolu comme li ma wax sànq rek phénomène la boo xamante ne tey jii nii tendance dafa mel ni dafa mel ni sax euh, xaw ma euh, ni dëkk bi di avancé nit ñi di am état d'esprit tordu parce que man euh, su ma déggee ñu ne xale xale bu ndaw bu amagul boo xam te ne fettagul sax ñu ne yegg nañ ci kawam man laajte naa man nit kooku noonu di yegg ci kawam moom ban xeetu nit la ndax est-ce que est-ce que sax nit la. est-ce que nit la wala est-ce que tamit dina lucide parce que man je pense que ne am na yoo xamante ne nit ku koy def doo lucide jël nit violé ko ba pare ray ko ak bakkanu doomu aadama ni mu fooree. xam xam nga xam nga lucidité. dafay fekk nga nekk su emprise alcool wala drogue. Mhm. mais ñii dañu tëral plan xaar ba ñëpp génn wala kenn euh, dem si togg parce que parce que léegi góor dañuy même mais mën na mais la plupart man ñi ma si sama xalaat bu gàtt li ëpp ci ñi def dañuy tux wala ñu naan ba 5 ans nga jël ko violé ko. 5 ans dafa sori bébé nag ay bébé sax. am na ñoo dañuy màgg loolu mooy nekk seen bopp dañuy dem ba dañ leen dañuy dem ba mën nañ si sax continuer di jaay seen bopp mm-hmm. parce que amatuñu dara lu ñuy garder ci ñoom dañuy dem ba dañuy fippu seen dignité mooy yàqu seen dignité mm-hmm. mooy yàqu bu ñu mm-hmm. toogee xalaat loolu am na ñoo xamante ne chaque jour da ñëw fekk leen ñu toog dañuy casé wu da xam ne ñii am na lu nekk si ñoom te mënoo fexe ba ñu wax te dëkk bi nag am na lu fi xew loo xamante ne dañ ko war a wax cas yu bëri am na ñoo xamante ne seen parents yi ñoo leen di violer

sàkk la ngay dox muy dox ngay dund muy dund am bakken comme yow nga am sañ-sañ bu toll ni ñëw ray ko mel ni yow yaay boroom loolu man si abusé mm-hmm. war nañ cee wax tëral ci ay charte yoo xamante ne def fi be ku fi rey nit ñu ray la wala même bu ñu la reyul ñu tëj la sa ngiiru dund dootoo génn génnati prison yenn ah dafa métti dafa doy waar xale bu jigéen bu toll à la fleur de l'âge nga ñëw nii rey ko nii yaayam dem voyager nga ray ko suuli nañ ko léegi jeex na dañ koy tëj benn 3 à 6 mois pare nañ si doy na waar dafa doy waar. mais euh, Maïté bëggoon naa la tamit poser benn question. boo mhm. xam ne boobu suñu euh, ku nekk ak cosaanam ku nekk ak aadaam. waaw xaraf xale bu ndaw. Mm-hmm. wala jigéen. Mm-hmm. Euh, est-ce que violence sexuelle la parce que mën nga frigide par exemple doo yëgati dara. Mm-hmm. Euh, soo dee soo dee soo dee seq dara ak doo yëg dara et puis surtout mën na tamit indi la ay ay ay ay ay ay effets secondaires yoo xam ne dafa jéggi d'ailleurs sur le plan psychologique. alors man man je pense que ne tey euh, ci par rapport ak domaine boobu noonu mooy maanaam excision bi nga xamante ne de plus en plus sax ñu ngi gis ne ñu ngi koy bàyyi man jàppee naa ko sous forme de violence sexuelle man dama ko jàppee forme parce que pour man c'est violer l'intimité de la personne violer vraiment euh, li nga xam te ne nit ki parce que nit ki tay il ne demande pas à ce que lolu dal ko bugg ko ko mais yaa ko koy forcer donc luñuy forcer nit rek pour man violence là lepp luñuy forcer nit te nekul lo xam ne dafa and ak sagom lo xam ne décision personnelle am la rek viol la que muy xalé bi que muy mag bi parce que tay xalé bi nga xamantene tay jini jii nii da koy forcer mu def leen yenn yi rek mu ngi violer euh, intimité ou nit ki. te ba nekk ci consentement. voilà parce que mënul nekk ci consentement waaw dañ koy téré ah ah et pourtant il y a des parents qui insistent toujours là-dessus. Tout simplement parce que c'est une histoire de tradition, c'est une histoire de génération, c'est une histoire de ouais, ay bu ko defulee chat dina ko dugg bu ko euh jinne yi dinañ ko jël c'est des bobards, c'est du n'importe quoi. Voilà donc man tay par exemple damay dama koy xolé tay ben xalé bo xamante bébé par exemple un bébé man je peux pas concevoir un bébé ni di yegg ci bébé quoi bébé bébé on a entendu des cas comme ça oh, bébé bu violé non mais est-ce que c'est ay bébé mais ah, am ah. ah. bébé bu fi violé woon ba mu ñàkk fa bakkanam la personne a confié bébé là la bébé Il y a 6 mois là, am 8 mois la y mois. 6 mois nit ki yegg ci kawam man amna histoire bu ma déggoon boo xam ne on en avait parlé le gars qui prenait toujours l' enfant doon jël xale bi ci yaayam parce que xale bi dafa takkoon waa ji yaay ji saay suy génn day bàyyi xale bi ci waa ji ndekete waa ji affaire bi lay jël di ko jox xale bi mu koy tete waaw gis nañ boobu waaw gis loolu di tete di tete affaire u xale waa ji waa ji daal moom bu bëggee nekk neex neexam rek mu mu samp affaire yi ci gémmiñu xale bi rek xale bi teg ko suset xale bi xamul dara léegi waa ji lépp li muy génnee muy dugg ci biiru xale bi noonu noonu noonu pendant des périodes mu yàgg ba mujj bi xale bi def benn nititu biir boo xamante ne bu yéem yaayam il a fallu que ñu dem hôpital que médecin yi constaté que ne l'enfant biiram bi yëpp looloo ci nekk. si même avant ñu dem avant ñu dem hôpital. Mhm. yaay ji dafa remarqué ni xale bi lu mu jooy jooy le gars bu ko jëlee. bu ko jëlee rek mu noppi après yaay ji daf ko topp. topp ko dugg ci néegam gis muy def loolu. xale bi daal waa ji moom saay su ñëwee rek xale bi da koy takk.

du ay bu foo fekkee yeggul bu ndaw vraiment yow boo ça veut que yow buñ la prison dañ la yóbbu hôpital ñu xool la. tu es malade c'est-à-dire yow baaxoo ci société bi dañ la yóbbu hôpital lu leer laa leen wax non cest il faut Sénégal bu confondre psychopathe. Mm. confondre psychopathe ak nit. Mm-hmm. ñooñu nekkatuñ ay nit c'est-à-dire gis nga boo demee ba yow sa esprit wala sa xel à moins de 27. dëpp parce que waxuma la de man parce que dégg naa ñu ne ay xale ay sa doom ay sa sœur mais loolu inceste la. loolu c'est c'est grave. cest à ñooñu euh, loi bi moom en tout cas man personnellement je milite pour ñu def peine de mort. man personnellement. man man dama koy militer quoi c'est-à-dire képp ku fi rey nit. wala nga jàpp xale violé ko man boo violé mag sax grave parce que mag jigéen boobu non non non côté bi ma non côté bi ma bëgg a waxee mooy. Euh, côté bi ma bëgg a waxee mooy gis nga jigéen. yàlla may na ko loo xam ne gis nga ay ñaari tànkam. gis nga ñaari tànk jigéen gis nga bu ko croisé mbindeef mënu koo dindi. ama leen ñuy wax rek noo xaar technique la technique la ñun ay kii non defal naa mhm. ñun ay góor ngeen yéen ay jigéen ngeen. jigéen bu dem ba am yenn âge yi su croisé ay tànkam mbindeef mënu koo dindi. Mhm. lu leer nag laa la wax mbindeef mënu koo dindi léegi lii nga xam ne mooy indi problème bi mooy ci côté xale yi moom nañ def peine de mort ku leen violé ñu rey la.

loolu dafa doy waar ndax nit ku nekk sa dund yaan nga yàlla di dund bonheur maanaam di am sensation boo xam ne moom la ñëpp am nga mën ko ressentir mhm. nga dem ba mënatuloo ressentir bonheur boobu noonu yow ragal nga ku la jege yow góor bu la xoolee sax yow pour yow góor ki day ñëw sa kaw sa kaw mais loolu c'est pas une vie yow da koy xoolee sa bopp nga xam ne des fois nga dox ci mbedd bi sa santé nit di dox sa ginnaaw sax sa fit rëf imagine toi xamante ne yow yow dara dalu la yow ci lucide koo xam dafa am post traumatisme boobu noonu nga xamante ne moom tey góor bu mu séen rek yaakaar na ne ci kawam lay ñëw mais kooku dootul doxati dootul dundati amatul ko suivre par un bon psychiatre un bon psychologue bu koy toppatoo kooku dootul amati vie bu normal tey jii nii bu fekkee ne am na ci ñoo xamante ne tey séquelles yi ñu ci jëlee mooy dañuy am ay ay ay problème de santé dootuñu mën a ci jur ay doom wala ñu dem ba ci biir am ay problème de stérilité yoo xamante ne lan moo koy indi parce que ci biir acte sexuel boobu noonu am na blessure bu ñu ci joto am boo xam ne ça a été soigné moment bi mu defee euh, bi mu amee problème bi et que loolu dafay mm-hmm. euh, récidiver récidiviser xaw ma récidive voilà récidiver donc du coup euh, cette personne elle a tendance à penser qu'elle est en bonne santé fekk ne elle n'est pas en bonne santé kooku buñ ko continuer wul di suivre adduna mën na ci yàqu Sénégal fi am nañ ay réalité yu ñu am yoo xam te suñu xel yi la nekk mooy jigéen bu mënul jur doom doo jigéen yaa ngi dégg yow xamuloo li la dal nga dem ba toog ba dugg ci biir néegu sëy nga doog a rendre compte que ci biir sëy bi ni que yow mënoo am doom loolu dafa kéemaan mm-hmm. que yow maanaam malgré c'est à cause de ce problème que tu avais eu il y a peut-être cinq vingt ans derrière qui t'a amené aujourd'hui à ne plus enfanter parce que tu ne savais pas que tu ne pouvais pas enfanter parce que xale mën nañ la defal diagnostic docteur yi defal la diagnostic faj la traité la lépp ba nga normal ñu yaakaar ne tout yaa nga dem ba màgg mu rattrapé la gam stérilité mais yow comme loolu jàll na depuis des années tu ne fais pas de suivi par rapport à sa santé nga dem ba dugg ci ben ménage wala moment bi nga xamantene nak moy maman moment bi baax bi pour nga mën jur tu te rends compte que tu es stérile nga war a yow chercher psychologiquement lu war indi loolu et si la personne se rend compte que ne lolo ko indi mais imagine toi ça cette personne est détruite en tout cas man de Maïté man sey man maa ngi mettre à la disposition des femmes yi nekk sama cabinet nañ ñëw gratuitement na leen defal suivi na leen defal suivi psychologique gratuitement man ma leen ko may jigen kep ko xamne mi ngi may déglu ni tay da nga am problème problème bob non. Mhm. na nga woote ci 77 803 46 46 man ko mettre à votre disposition gratuitement ma que vous ko. incha allah Je mois lay avant lolu dama dégg sank Seydina nan fi ku fi ray nit dañ la a idée bu ko mais je pense que ni man. si à mon avis lolu mënuñ ko def ci Sénégal. parce que Sénégal pays laïque non laïque. pays laïque la major la majorité bi nous sommes des musulmans mais dafa am ay chrétiens yu fi nekk bokkuñu su le chef yi nga xamante religion bu fekkoon Arabie Saoudite lañ nekk foofu ku fa ñu la ku non mais je suis pas d'accord non may may je suis pas d'accord pour du laïcisme non attendez non al hum. Sénégal il faut pas ñu fausser débat il faut pas nous faire ce débat. Si nous avons problème problèmes, 95% musulmans, 5% julites, 2% animistes ou 1% athées. Nous avons des bon. problème de société. Madame, pour régler ben société, pour régler un problème sociétal, moi, nous sommes tous égaux. Nous n'avons quelqu'un qui nous a dit que nous avons Les problèmes. Julites, nous avons mais ci dëkk bi lañ dëkk ay sénégalais lañ bi sénégalais la candidat sénégalais la animiste nit la sax à la base yaa ngi dégg dañu waxuñu problème il faut man sama dama koy déglu ci rajo bi bu ñu faussé débat bi di wax ne ay quatre-vingt-quinze pour cent ay pays laïc pays laïc bi dafa nekk ci beneen beneen beneen beneen angle la beneen dimension la dañu ne bu ñu nekkee ci benn société ñu gis ne am na leen lu fiy gangréné loo xam ne mi ngi yàq société bi ku ko def nañ nañ ci wut solution defe li xam ne solution bi mooy lan mooy ku rey nit ñu rey la yaa ngi dégg C'est rey nit ñu la violé ce que le dégg wax a problème ay julit la ay catholique la fii dépassé les catholiques la Seydina man je te rejoins dans ça pour que les gens arrêtent de dire hein. que oui c'est une histoire comme tu dis c'est pas une histoire de religion parce que la religion chrétienne bi ñuy wax nga xam ne mu ngi exister fii même si c'est en minorité elle n'admet pas ces actes là léegi athée yi donc tey waxtaan la pour trouver son consensus athée yi ak on connaît ta position Seydina on connaît ta position xam nañu position wu Laari xam nañu position Maïté man xamnañ sama position on nous sommes des citoyens mi nga xamné ne dañu débattre ci ben affaire bo xamné ça concerne tout un peuple mm-hmm. pays laïque moy pays bo xamné constitution non le dépôt. point bas c'est-à-dire que liberté d'expression ñëpp égaux par rapport à la religion par rapport au à la société lu mu leen di lu mu leen di lu mu di mm-hmm. maintenant su fekkee ne da nga bëgg dama non man damay léral man polémique polémique mo ma wax mm-hmm. dama né pays islamique bu tëral charia mon nan euh, dañu sukkandiku ci Coran ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la ku violé ñu rey la ainsi de suite c'est-à-dire que c'est s'il te plaît. non waaw non <laughs> non dama gis voilà. Euh, c'est exactement comme ça nañu nañu nañu tëralee société yi maintenant su fekkee ni da nga bëgg loolu am par exemple de plus en plus en gars yi man comme man comme ñeneen ak ñeneen ils veulent qu'on instaure la peine de mort mais s'il y a une condition parce qu'on est dans un pays laïque. mais la peine de il faut tenir compte mais bàyyi ma ma wax. non mais la peine de mort c'est en 2004 lañ ko dindi. bàyyi ma ma wax. Les euh, peuple bi yëpp ñu ngi naan nañu peine de mort parce que sont tellement outrés et choqués par la violence des meurtres yi nga xam dafa depuis presque deux semaines trois semaines et ça c'est en fait maintenant pour que état bi faire a def peine de mort il faut que nous ressusciter benn loi il faut que mu woote référendum y a un processus euh, euh, démocratique bi nga xam dañ ko pour que nit ñi ne ok léegi peine de mort en Sénégal c'est juste un éclaircissement pour nous déraper. ku nekk nag am de position personnelle. voilà am nga position personnelle. je pense que c'est pas une histoire de position non mais attends. quand on parle d'avis quand on parle d'avis moi position personnelle man je suis obligé d'être un modérateur. mais mais qu'on nekk que avis. Parce que c'est un truc très sensible en fait. non, en fait, moi, je pense qu'on n'est pas dans l'optique de, de position. En fait, on est dans l'optique d'un cri de cœur. Le cri de cœur, il maintenant, est. Maintenant, un cri de cœur. Voilà, un cri de cœur, il est. Il que est convaincu? Tout le monde voudrait. Maïté, monde... attention, il faut pas aussi insulter l'intelligence des gens. Vous avez parlé, Vous êtes d'accord avec l'humour. lu mu peine de mort man leen peine de mort Voilà, muy am. il faut que mu demee nii cadre <laughs> on est dans le cadre de donner juste euh, un point de vue sur une chose boo xamante on cherche tous la solution. non non non dama lay <laughs> expliquer rek dama la bëgg wax ne li ngay wax ci le fait que la constitution on est un pays laïque tout ça tout le monde est conscient. Non, non, non, personne n'en est conscient. Là, moi, en fait, man, je suis obligé de revenir à ça parce qu'on a un peu dérapé sur le sujet. Non, non, mais non on n'a pas dérapé. on a donné des points de vue, des impressions. Personnel. Wow. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour une fois, man, je suis pas d'accord avec toi. Mhm. Pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. D'accord, bismillah. Euh, puis dérapé, ou Dañu né dëkk bi amoon na peine de mort bon xam deux fois il ko ko a utiliser Senghor moo après nous dindi quoi ñu en 2004. lañ a dindi non mais 2004 lañ ko dindi. Abdoulaye Wade moo ko fi pourtant avant 2004 le Sénégal a toujours été un pays laïque donc te loi boobu mi ngi fi loolu lañ wax ñu ne comme légui situation bi dem na ba yegg fi ñu tollu ni ni ni. et le Sénégal a toujours été un pays laïque te peine de mort nekkoon na fi. ñu ngi won ci ñu delloo fi loolu lañ wax. on n'a pas d'autre chose. non loolu c'est un débat C'est un vœu C'est un vœu fait c'est une proposition. C'est une impression de manière très neutre j'ai j'ai attiré l'attention sur l'aspect. bien sûr euh, bien euh, sûr La constitution, c'est évident ça c'est une évidence que la euh, constitution on est obligé de la suivre. Maïté ah. il est évident pour yow mën évident pour ñeneen. D'accord, ok. non dañuy waxtaan xam nga àll tamit ci waxtaan lañ nekk. te euh, tey je pense que si on ouvre un sujet et qu'on parle d'un sujet. Mhm. chacun a le droit de donner moom gis-gisam. alors gis-gis bi ci am ñun mooy pour ñun on devrait le faire alors après est-ce que ça va se faire ou ça ne va pas se faire pouvez aussi <laughs> après ça je respecte ton avis Moi, je mhm. te dis c'est ton avis je respecte l'avis de Seydina, je respecte l'avis de Malari. Respectez aussi mon avis. Bien sûr, on la respecte très bien même. <laughs> voilà, 8h03, jot na ñu doon wax ci affaire violence violences euh, ci King Santé àndoon ci Maïté Maïté loo voilà donc di di wax nit ñi rek ni que euh, maanaam tay bu nit ñi yakarne euh, santé dafay limité wu juste ci euh, nga feebar am ben feebar dem faju ji am ben problème nga dem seeti docteur ak il y a des cicatrices yo on peut même les appeler des docteurs bah en fait c'est des docteurs hein en psychiatrie il mhm. euh, y a des psychologues qui sont là qui ont fait des formations pour ça pour aider ces personnes là qui sont victimes de ces violences sexuelles là accompagnement bobu non nga xamantene mom le nit ki victime bi wara am

de ce genre de problème docteur en psychiatrie Nous régulièrement en consultation gynécologique Nous état de santé d'homme. ou pas rubrique santé d'accord merci beaucoup Maïté c'est un débat très houleux. Euh, chacun donne son avis <laughs> c'est bien il y a des extrémistes comme il y a des gens un peu oui oui non non mais en fait comme li wax hein, donc c'est un débat bo xamné voilà c'est normal gars yi ku nek wax sa sa xalat mhm. et puis ku nek jël si. am si njëriñ ah. ku nek am lo si lo si jëlee état bi ak ñi nga xamné ñu ñuy déglu ñom aussi peut-être amuñu won euh, possibilité woote pour wax ñu seen xalat mais qu'on trouve en tout cas une solution une bonne fois pour toutes. Non, elle va Parce creuser que ça. nous connaît. Elle va creuser ça. Mhm. Donc euh, voilà quoi. Il faut voir un juriste, il faut voir un consultantiste, un psychologue. Bah oui, euh, ils seront toujours là. Hein. On va aller voir les psychologues. Ils vont nous dire par rapport à la tendance actuelle. Absolument. Voilà. va continuer, mais si on arrête, on va le dire. Ah non, que